Sonko dafa war a dem wuy ji fenn kese naa féq yi ñooy toog wax naa leen man xam maa ngi leen di wax ne ce sont les charognards yu nekk ci plateau tele yeeg rajo yeeg di ratatatata di wax Sonko dafa war a dem wuy ji mais tey dëgg gi la ñuy rétablir Sonko lu mu bon bon juróom ñaar yoon wuy ji ne ko justice mais dafa am lu xew nañ waxante dëgg te yàlla tax ku naa féqul ne ko waaba jiibe ne ko koy fen bàlle na ci kàddu gi parce que loolooy dëgg xam nga ne li ngay wax amul lu ñu teg Ousmane Sonko dama ne la teguñu ko benn homme politique fii jugé nañ fi ku ne Karim jugé nañ ko jugé nañ fi xalifa Sall liñ ko teg teguñu ko kenn bi ci njëkk Sonko ñu fal ko maire de Ziguinchor bu ñëwee ndakaaru toog ndakaaru naa féq yéeg waaba yi taxaw takk rajo yi faalewul Ziguinchor bi ko fal mi ngi toog fii Dakar di politique ah au lieu mu dem bu bàyyee fii Ziguinchor Dakar dem toog Ziguinchor ñu ne ah dafa daw làqaju euh, dafa daw làqatu ji daw na làqatu ji Sonko daw na làqatu ji fooy amee jàmm léegi foo leen bëgg Sonko dem Sonko day dem toog Thiès wala day dem toog Fatick fan lañ ko fal maire du Ziguinchor bu toogee Ziguinchor ngeen na dafa làqatu ji Ziguinchor bu jëwee Dakar nga ne faalewul waa Ziguinchor moo tax il faut sénégalais yi kenn dofatu ñi wax lolu ñoo dof kay ne ànd ak ay faré mata bandax mais sénégalais kenn dofatu fi sonko ci ay mbokam la dem tok rigu fa fa lañ ko fal ay mbokam ko fal jigen so mu dem tok kërëm parce que bu nekké fi ndakaaru pant pante bi mën nañ ko boom mën nañ ko boom amna lu fi jotta xew am na lu fi jot a xew le 16 mu dund loolu xam les conséquences mu ne maay ma dem toog ku ma soxlaat fekk ma Ziguinchor ndax foofu lañ ma fal maire de Ziguinchor te ci yoon fa laa war a toog liggéeyal waa Ziguinchor te nit ay mbokkam lan la dajul ak justice sénégalaise liñ teg nii Sonko genn wàllu genn wàllu genn wàllu buñ ko tegoon Macky Sall du bokk sax ci ay élection bu ko Ablaye Wade tegoon balaa may dee ñu ne dafa war a dem wuyu ji bi ci njëkk fan la woon mbiru Adji Sarr ak Sonko ñu ñëw toog lu leen moo xew Sonko nekk député am immunité parlementaire am malaanu tirlaayam boo xam ne mënuñu koo dindi lu dul flagrant délit viol kañ la doon flagrant délit te ñu sax toppatoowul loolu toppatoowul loolu ndax jàpp nañ fi ay Déthié Fall mu nekk député jàpp nañ fi euh, ay Bara Dolly mu nekk député faalewul yooyu ñoom ci seeni plan ci mbiru aji Sarr ñoom ñoo toog waxtaan ne ce gosse est fougueux il n'a pas compris nañ ko dóor convocation bi rek xam naa dina bëgg a ñëw pour setal dara bu ñëwee ñu door ko euh, ñu def ko garde à vue ngeen jàllale ko ma dóor ko mandat de dépôt mu dem balaa dara di xaw di dugal ko rëbës balaa ñu koy génne nag ñu doog a régler seen problème c'est ça que Sonko a compris loolu Sonko xam moo taxaw mu ne leen wuy jiwuma parce que la ñu bindoon ci milieu courante bi lépp xam nañ ko j'ai décidé de renoncer à mon immunité parlementaire bu ñu wax loo ah bu ñu wax loo renoncer à mon immunité parlementaire pour laver mon honneur loolu bindoon nañ ko ba pare ñu ñëw toog Sonko xam loolu am ko wax am ñu ko wax it dem wulu ji parce que da nga am immunité parlementaire te immunité parlementaire boobu nag nañ ko lever ba pare doo ko xam procureur gënu ma koo jàng ba mu amee man taxaw naa ne ko doo wul ji nañ lever sa immunité parlementaire ñoo gënoon xam piège lañ tëggoon ne woy fuggam ak yooyu boo ko joxee rek day ñëw wuyu ji